intilaaxan min kolobaan ila assemblée nationale intilaaxan min kolobaan li raf di góor jigéen intilaaxan min kolobaan li tamassuki wal wahdati li taxyiiri ma yajibu an yuxayyar mbokk yi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 lu ay birig bari bari bari buñ leen tegale wut duñ tudd miir duñ tudd kër ay birig dooma la ñuy tudd lii fi daje te daje woon fi keroog daje male te man fee dajewaat waaye rikk waay nanu boole doole yooyu soppi li war a soppeeku changé li war a changé ñii daal kuñ fal yaay kuñ fal yaay bu fekkee ne bu diri ji amee lu ko naqari ñu ñëw daje demaat mu amoon lu ko naqari ñooñu daje demaat dañuy daje demaat rek te wolof nee na ku yab jàmbaar ca doxin wala imtilaaxan min kolobaan ilal waxdati li raf góor jigéen kàddu gu njëkk ga ba ci kàddu gu mujj gi mooy du fi am du fi am du fi am tànn leen nag li fi jële lii fu ñu ko mën a tànne baax na ca daara ja ca barab ba ca beneen ba ñu ànd ñu ñëpp def na say kuñ fal yaay fal kuñ fal yaay faleew yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara waaw waaw ma jeexal ci ma jeexal ci lii ma ŋàbbu fu nu diine wooxe rek ne jaahidu fi sabilillahi bi amwaalihim wa anfusihim wa anfusihim mooy naaj wi ngeen taxaw waa leen góor yowmal xiyaam yàlla buñ gisu naaj bi amwaalihim nag mooy mbuus yi ku mbuus ñëw ci yow li ca sa poos def ko ci suñu borom bindala tuyaaba tant yeeg sees yeeg rajo yooyu ñu fayee leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu takbir takbir jërëjëf oustaz euh, ñi ngi wax usmaan di Alassane Ndiaye carte d'identité mi ngi fii ci taabal ji ñu jox oustaz Makhtar